chiffres yi nga xam ne yi ministère de la santé bés bu nekk mu génne ko war na tax kenn ku ci nekk taxawaat seetlu ci bésu tey bu ñu xaymaa li ñu tàmbalee ba néega ni lu mat fukki junni daanaka ak juróom ñeenti téeméeri nit ñoo jotoon jot ci feebar bi ci ñooñu ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom jot nañ koy ñàkk seen bakkan loolu bu ñu ko xoolee xool par région parce que Sénégal fukki région ak ñeent la liñ ci jàpp mooy dakaar moo ci jiitu ndax dakaar am na huit mille quatre-vingt-cinq cas juróom ak juróom-ñett fukk ak juróom maanaam ci lim bi mu wax léegi nii téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk ak ñeent région de Thiès moo ci topp ak junni ak téeméer ak ñaar région de Diourbel nekk troisième position téeméer bu ci nekk am na ci juróom-benn ndax juróom benn téeméer la am juróom-ñett fukk ak juróom-ñett région de Ziguinchor nekk en quatrième position ndaxte am na ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent maanaam téeméer bu nekk am na ci ñaar ak e, genn wal wala boog ñaari téeméer yu nekk am na ci juróom bu ñu defee xool chiffre yi nga xam ne moom la ñu am ñeenti région yooyu rek ñoom li ñu am ci feebar bi dem na ci fukki junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom daanaka ñeenti région yooyu téeméer nit yu feebar yu ci nekk juróom-ñeent fukki ak ñetti foofu la ñu dëkk te it baax na am na solo ñu préciser leen que feebar yooyu nombre boobu mu am lépp juróomi fukk ak juróom ci téeméer bu nekk amuñ ñeent fukk at donc feebar bi au départ dana wax ba ngi lay dal waaye chiffre li mu ne mooy day dal également ndaw yi léegi waaye bu xoolee ñi ciy ñàkk seen bakkan à la date du 5 août maanaam bërki démb bi ñu xoolee chiffre yi total 213 personnes yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñaar ñi ñu mën a woole ndaw manam ñi amul ñaar fukki at ñoo ci ñàkk seen bakkan euh, juróom-ñett ci ñi nga xam ne ñi am nañ fan ñaar fukk ba ak juróom donc boo xoolee ñi nga xam ne ñi ñoo ëpp ci ñu feebar muy ndaw yi amul ñeent fukk at ci euh, juróom fukk ak juróom yooyu mu pour cent fukki nit ñoo ci ñàkk seen bakkan suñu jëlee ñi nga xam ne ñi ñoo gën a mag maanaam ñi am diggante ñeent fukk ba juróom fukki at ak juróom-ñeent ñeent fukki nit ak juróom ñàkk nañ ci seen bakkan ci 213 personnes suñu jëlee ñi nga xam ne ñi ñoo gën a mag maanaam ñi nga xam ne ñi wees nañ juróom benn fukki mooy ñi ñu wooyee suñu personne troisième âge ñoom ñoo gën a paye tribu bi ci euh, bi ci gën a diis ndax ci ñoom ñàkk nañ ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett kon loolu suma ma ko résumé waatee li ñu wax mooy xale yi danañ feebar ñoo ëpp ci ñuy feebar mag ñi même bu seen nombre limee ñoom ñu ëpp fuuf ci li nga xam ne dañ ciy ñàkk seen bakkan donc loolu am na solo nit ñi xam ko ndax fukki xale ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lu mat juróom benn junniy malade téeméer ak ñetti mag ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lu matul juróomi junniy malade donc loolu li wane wax dëgg ak jàpp naa ne leçon bu am solo la donc ndaw yi danañ feebar ni ñëpp di yóbbu feebar bi ci kër yi malheureusement di walla mag ñi mag ñi di ci jógee di ñàkk seen bakkan kon nag loolu wax na kenn ku ci nekk nga nekk ndaw surtout war nga ci am prise de conscience xeex bi bi mu tàmbalee Sénégal def na ci jéego yu am solo di fàttaliku ngeen état d'urgence bi waaye ji circulation euh, limité circulation bi nga xam ne moom la ñu den def limité circulation des personnes des biens instauré couvre-feu tëj école yi université yi ak yeneen jàngale lii yu ñu jàngale interdire wala ñu limiter rassemblement dans certains lieux loolu lépp defoon nañ am na ba léegi sax juy wax ne am na njëriñ waaye bu xoolee ni maladie bi évoluer aussi xam na ne am na njëriñ parce que peut-être bu ñu ko defutoon mën naam tey weesu na fii parce que ba léegi malgré wax yi muy bari bari ci juróomi région daanaka ci la feebar bi nekk euh, les neuf régions ñoo ñoo partagé wu juróomi pour cent yi nga xam ne yi moo ci des am na solo ñu wax ko ndaw yaa ngi feebar bien que des fois yëgul ko des fois sax duñ dem ci hôpital wala boog yàlla may na leen peut-être loo xam ne lii mi ngi ci seen yaram mën nañu faju waaye ñooñu ñoo ju ñoo koy jëlee ci mbedd mi delloo ko ci kër yi mag ñi li ci ëpp boo nekkee yenn mag génnuloo fu bari grand place la ñuy dem ñenn ñuy dem wala jàkka ji wala ci levée du corps wala ci ngénte waaye malheureusement gis nañ ne foofu la ñu koy jëlee buñ delloo ci kër ga ñenn ñi yéex a dem ci hôpital que bari na ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan parce que dañoo yéex a dem ci hôpital parce que la veille wala la veille la ñuy dem hôpital ñu ñàkk fa seen bakkan kon lii dafa war a interpeller ndaw yi ndaw yi parce que ñi ngi feebar interpeller leen parce que ñi ngi wàll mag ñi pour ñu jël ci prise de conscience moo tax fépp koo xam ne fii ndaw daf fay daje ñu war fa jël ay mesures yoo xam ne yii dina dina am solo donc heure bi du ñu nekk di werante du ñu nekk di ñuy ñuy ñuy polémiquer dañoo war a jël ay décisions yoo xam ne yi dana mën a aar nit ñi ci ci ci ci feebar bi. Sénégal nag yàgg nañoo wane ne bu ñu àndee ñun ñëpp mën nañoo mën nañoo xeexandoo euh, te am nañ yaakaar ne dès le départ defoon nañ ko ensemble c'est vrai que remarqué nañ que depuis bi président euh, waxee ne nañu def mesure d'assouplissement yi am na ñoo xam ne ñii peut-être wàññi nañ euh, ci taxawaay bi nga xam ne bii moom lañu amoon. loolu moo tax conseil des ministres àlarba bi passé 5 août 2020. ak réunion bi président de la république moom ci boppam jiite muy euh, CNGE mooy comité bi géré donc euh, affaire épidémie bi mu gère mu def ko démb président joxe ci ay direction yu leer ay ndogal ci li ñuy jël ay décision avec effet immédiat bi ci njëkk mooy tere nañ bépp rassemblement ci li ñuy wax plage maanaam ci tefes gi parce que ku nekk gis na rawatina ci période tàngaay bi ni fa ni ñi di demee su na nag ci Ndakaaru waaye fépp la fépp lañ ko lañ ko tere tere nañu également rassemblement ci terrain sport yi ci espace public yi ak ci salle de spectacle effet immédiat maanaam buñ ko waxee dafay dogal bi day dal di dog tere nañu également toute manifestation sur la voie publique mooy maanaam procession yi ñuy def yëpp ci voie publique bi réunion yeeg ngénte yi nga xam ni day génn bëcci ci mbedd yi dëj yi nga xam ne day génn bëcci ci mbedd yi yooyu yëpp tere nañ ko à partir de maintenant rawatina nag ci région Dakar ndax niveau feebar bi fi mu ci toll. wax nañu également port obligatoire de masque maanaam takk masque amut duñ ci luñ ci négocier ak lu ñu ciy laam-laame ci boo duggee ci say bureau boo nekkee ci service administration wala service privé fépp koo xam ne fii mbooloo dafay dugg ku fa dugg ku ne nekkoo yow dong war ngaa def sa masque. ci commerce yi maanaam marché yi ak bitig yi nit ñuy dugg également ku fa dugg ku ne. parce que takk sa masque moo lay aar mooy aar ki nga xam ne kii moom ngay jàkkaarloo ci transport yi rawatina transport en commun muy taxi muy bus muy car njaga njaay ak lépp lu mu ci mënti toujours takk masque bi obligatoire la ministre de transport moom aussi jëloon na arrêté wax ne kenn dootul surcharge oto yi maanaam oto yi nga xam ne ay car lañ dina am ay place yi nga xam ne ñi dañ ciy taxaw donc arrêté yooyu dañ ko wax nañ police ak gendarmerie pour ñu respecter ko scrupuleusement rawatina également ci nombre de place yi nga xam ni moom lañ permettre ci transport en commun yi ñuy wax taxi taxi euh, taxi euh, que ça soit clando wala yeneen taksi képp ku ci violé disposition yooyu ñu jël yoon dana la daan yoon nag li mu daan am na amende code des contraventions dem na sax ba tëj kaso am na ci tey ci suba waxtaan nañ ak directeur police ak haut commandant de la gendarmerie pour que ñu jël disposition yëpp pour que contravention yooyu comme ni leen ko yoon permettre ñoom ñu mën ko appliquer. bëggoon nañu wax nag gannaaw jàkkaarloo bi tey que jël nañ ñu matuwaay waxtaan nañ ak police waxtaan nañ ak gendarmerie pour que ñu mën a jël seen disposition ñu ngi leen di féliciter au passage ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii liggéey nañ ko. bi nga xamee ne bii rawatina ci période couvre-feu te ñu ngi koy continuer ndax barki démb rek police nee na euh, verbaliser nañ cent personnes yoo xam ne nekk yoon di di takk masque parce que kenn ku ci nekk xam ne réew mi réew yoon la yoon moo ci dox loolu moo doon kàddu yi nga xam ne gi moom laa bëggoon no weccu ak yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu